salaamaaleykum Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag dama xaw a am lu ma metti j'étais pas là donc je viens d'arriver mm, ma ñëw sama kër parce que tey ci suba yi pare lañu indi lettre bi parce que lettre bi mi ngi jaabante lu bëri mi ngi jaabante sama kër njëkk nañ ma indil i benn lettre mooy temps bi ma defee sama live Facebook boobu ba pare tey ñu indiwaat boobu man maa leen ignoré parce que dama ne ñii li ñuy wax nii taxawul parce que dañ may indi benn lettre ne ma dama war a fay ay millions impôt man ma ne noonu ñu ñëwaat nag insister parce que nee nañ réagiruma defuma dara këyit baa ngi nii regardez gis ni direction des service fiscaux adressé à mademoiselle à madame Koumba Diallo mi ngi nii yéen a ngi gis bu baax ah, gis ngeen ñu ne dama wala dama leen yoreel 41 millions ñu ne dama leen yoreel dama leen yoreel 41 million gis ngeen waaw mi ngi nii je je prends nag l'opinion en témoin mi ngi nii xam naa ne su nekkoon man maa leen ko yoreel man dama koy fay waaye man li ma jaaxal balaa ngay fay impôt nga war a am ay source de revenu ay entreprise awma ci yooyu dara kon nag je pense que ni vous vous êtes de personne da ngeen war a dem ci ñu war a fay te fay ñooñu ñu fay man na ngeen may ma sama jàmm ndax man politique laay def mouvement laa créé wala léegi kuy politique da ngay fay impôt ngeen wax ko mu leer parce que nag yéen am ngeen droit bokk keneen amul droit bokk. am ngeen droit wax keneen amul droit wax te réew mi ñun ñëpp ñu bokk ko te ñu yem fi lii nag dinaa ko dénoncer jusqu'à la dernière énergie instant bii nii lu ngeen bëgg duma leen ko may lii ngeen wax ma fay ko aw ma ko ndax aw ma ko dama ko amul sax ba koy fay donc euh, aw ma société aw ma entreprise aw ma source de revenu kon nag impôt bi ngeen ma indi laa bëgg xam pour lan la du man maa ko war a fay da ngeen a juum. damay laaj dans quel pays sommes-nous dans quel boo ko bëgg sax dugg si politique ñu lay xokkatal di la indil ay impôt yu nga xamante ne yow xalaatoo sax fan xamoo sax fan la jóge di la ay affaire di la ko ci tegal ay montant yoo xamante ne mooy loolu juste pour euh, dagg sa moral wala pour euh, décourage loola wala pour sonal la wala pour xokkatal la sama gars yi Sénégal gu ñu nekk nii beneen xeetu Sénégal la ñuy dund instant bii nii beneen Sénégal moo moo moo moo am instant bii nii politique ñoom ñu ngi ci mais keneen amul droit nekk si man mouvement laa yi commencé dugg duggaguma sax joxe dugal bopp rek ñu commencé waaye ñun lii duñu tax a dellu ginnaaw te duñu mës a arrière jërëjëf.